mbokk julit yi mbokk talibe yi ci ndigalu serigne Touba serigne Muntaxa Basiru Mbàkke xalif général des mourides yàlla fi yàgg lool te ànd ak wér ci kilifteef ak ci njiital serigne Modou Kara no président fondateur mouvement mondial pour l'unicité de Dieu njiitu al Khadimia. mam Cerno Mbàkke imam ibnu serigne Modou Kara no ni ak mbooleem waa diwaanu Bamba fépp ñoo am mbégte ak tawféex di besub ak di woote bésub 31 décembre bi ñu at mu nekk Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul di bés bi généralu Bamba daan woote ca Sadiam Maris Ndiaye dajale ndaw ñi doon leen fàttali ak nampatal ci ku tedd ki ren di woote bés bi ci Caaroy Azur jàkkaarloo ak société africaine de raffinage SAR samedi fanweeri fan ak benn ci weeru décembre 2022 muy vingt-cinquième année bi ñu ci sant di ci sargal ak di ci delloo njukkal Cheikh Modou Kara Mbacké Noreyni programme bi bu nu xëyee ak njàngum alxuraan njàngum xasida de sang di maye deret ba 13 heures ñu teeru ji sëriñ bi de poste Caaroy mise en place 15 heures 16 heures 30 cérémonie bi di waxtaane ak ak enseignement ak éducation masalan njangalem Serigne Touba guddi gi njàngum xasida zikrulaay ak waxtane Serigne bi ak ay borom xam-xam yu ci grande journée dédiée à Cheikh modou Bamba ci tiaro Azur samedi fanweeri fan ak ben ci décembre 2022 ci njiital Serigne Modou Kara Mbacké Noreyni di diko yëgal son excellence El Hadj Macky Sall soxnaam Marème premier ministre ahmadou Ba ministre de l'intérieur Antoine Félix Djom, ak mbollem gouvernement bi alaykum عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته